xafa nga lu baax bokki taalibe yi tey de li ma bëgg a ubbee waxtaan wi mooy présenté leen suñu benn mbokkum taalibe Mohamed Ndiaye di daan ko wax Pierre taalubeb Sëriñ Saaliwu laa bëgg leen présenté mu présenté boppam ndax daa am ab cir ci jàkk te guddi na te bu war a dellu ngir waajal loola ma bëgg mu nuyoog yéen ngeen xàmmee ko ndax fu ngeen ko gisati ngeen xam ni daal lu dul Serigne jërëjëf Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jaraw lakk Cheikh Béthio Thioune mbokku jullit yi mbokku yi ñun ñoo ngi leen di di wax ni tey bésu tey jii sëriñ Saliou defal nañu loo xam ne tey mottale na liggéeyam bi mu tàmbale woon ci ñun tey jii la doog a mët wala boog liggéey bi tey lay doog a tàmbali ndax liggéey bi bu nu aguloon ba fii liggéey bi du am njëriñ ndax kuy liggéeyal Serigne Saliou te Serigne Saliou joxoñ la def la liggéeykat foog nga jokkoog jàmbaar bi sa liggéey doog a dox kon loolu moo waral sunu teewaay te bés bi mënuloon mukk ñàkk ndax kii la sëriñ bi ne woon ku ko gis gis ko bu jamono weesoo ku ko gis gis sëriñ Saliou wax jooju sëñ bi wax na ko ci ñun Mouhamadou ma ne ko Mbàkke mu ne bés dalee jot de danaa làqu waaye ku la gis gis kon loolu sant nañ ci yàlla bu mu ñu boolewaatee jëm ji nga xam ne kenn ku ne xam na ni numéro un sopp sëriñ Saliou moom la ku bëgg serigne Saliou dañ ko cey fekk mu sëriñ Kalaay kenn mënu ko dab ci bëgg serigne Saliou serigne Saliou feñal lu rëy sama digënté ak mom ndax dañoo bok ñun ñaar fu ñu cosaanoo muy jobaas ñu bok tafet ñu bok kër cheikh bok ngolar bok got bok putjat bok taten bok mbomboy bok jass bokk sipan te loolu mu bëgg di ko dégg ndax tur yu mel noonu yéen xamu leen ko moom xam na ko te muy bëgg ñu koy waxal loolu ndax cosaanam la te ku fokk cosaanam la ndax lépp fa la tàmbalee le 17 avril 1946 fa la tàmbalee kon tataset fa la lépp sosoo taset tam fa laa sosoo taset moo waral daje gi tey ji lii moom mënul woon ñàkk ci jamono ñaari jëmm yu Serigne Saliou defar ñu daje kii nag defar moom damaa dajut sax xalaatuma ndax ndax lakk Serigne Saliou Badil weesu na mu defal ko keneen kenn dootu ko am lu mu am ci Serigne Saliou moom képp la ku ci bëgg tam da nga ñëw tibb ci moom rek ku mu séddut nag doo séddu ci Serigne Saliou ku ci Serigne Saliou nga bëgg a ci Serigne Saliou nga bëgg a baax la ci Serigne Saliou boo jokkoowul ak jëm ji sa dara du sotti loolu moo waral ñun ñu teew si ndax ci sunu jëm bopp lépp mi ngi tàmbale 1970 mag sunu juddu ci nettali ndax nettali magut kenn fa zakir inna zikra tanfaul muminin dee leen di fàttali ndax fàttali dina jëriñ jàpp yàlla dogal ci araadaam ndaxte inama amruhu isa arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun yàlla lu mu bëgg su ko bëggee day ne rek loolu na ne loolu ne ca kunam nag la tibb teg ko ci loxo Serigne Saliou Serigne Saliou jëfandikoo ci kënu sëñ ci kunu yàlla def ñu la doon tey ba tey jii ndax ca li mag sunu juddu ci nettali ci résumé ku nu xamu it war nga doo gis ci jamono yi te loolu sababu sëriñ Saliou la 99 dem fa dem ñu toog ma nuyonte ak moom ba mu yàgg ci résumé mu ne Mouhamadou ma ne ko Mbàkke mu ne am na lu nekk sa xol de nga bëgg ko wax ma ne ko Mbàkke loolu rek laa bëgg a wax mu ne mm, ndaxam war a ko wax léegi na nga ko noppee bis jot di nga ko wax te boo ko waxee at yëpp ko dégg loolu yàggul buñ ko fii bu mu firnde woo léegi matagul deux mois defe naa la sëñ Saliou waxoon ca ginnaawam at yëpp dégg na ko tey ji la nit ñi doon gam-game di ko di ko nëbb tey ji leer na ndax dañu ko bind téere bëgg koo génnee ñu ne ñu du fi génn xanaa kay internet moo gën a siw téere lan doon bañ mu génn ci téere tey génn na ci internet adib yëpp dégg na ko ndax wër na fu ne suñu borom dogaloon ñu ci beneen ci beneen laa wax ndax diine ina diine ina laxal islam diine moom ci islaam rek la ci namam mu nekkoon suma diggante waajur ak Serigne Saliou ci jamono comme li mu defar li mu defar jëmm ji néew ma mën na nañoo tolloog moom déedéet xalaatuñ ko waaye nag ci anam yu mel noonu la jaar ndax jóge mbuur di dem kot di jaar sama toolu waajur sama waajur doon chrétien dab ko ne ko nag dama bëggoon nga defal ma ñaan ngir sama soxna si daa am lu ma namm ci moom te wax dëgg fa yàlla saa kooku ñëwee rek day dem defal ma ci ñaan mbàkke dama am ci yow yaakaar mu def ñaan ñu toog xewlu lanu xewlu ca laax ba fala lépp xewe ndax ba mu defee signe de la croix ca laax ba ñu ko lekk fala lépp xewe Serigne Saliou mu tedd mi maandu lool muuñ ne ko ànd lool na mu ci lii mu ne dama bëggoon bu juddoo ma dugal ko fale ngir mu doon la ma la ma bëggoon ngir mu doon ab labbe yàlla dogal ñu ñëw 72 laata ñuy ñëw nag fekk ne jaayante ak Serigne Saliou bi lan la woon nee ko kat Serigne Saliou nee ko mbaa bu magee di nga ma ko jox mu ne ko waaw su juddoo bu magee rek danaa la ko jox ne juddu rek mag xam nga kuy ñaan boo ñu ne la di nga am kooku moom loo di lu la borom wax di ko ko dig. waaye nag dafa xamut kam doon dig ndax booy dig Serigne Saliou di boroom jamono nga foo ne danga koy nax di ko dribble ndax nga sa bopp looloo waral lii ba loolu amee ñu ñëw ñu dem ba mag ñu dugal ñu ci foofee ñu fay dem Espagne France Londres New York di ma safurla Brésil Portugal Allemagne fépp Rome dal di dikk fii 92 ak jëmm joojee ñu nax Pape Jean Paul II ko fi indi jàngal ko olof motale ko lépp suñu borom dimbali ñu mu ñëw fii keroog ba mu fi ñëwee keroog lanu Serigne Touba génnee foofu fee ñu ne woon ca présence am génne ñu fa ba mu ñu fay génnee dañu ci am fu la xamal ko kat Mbàkke nun kat fan ne woon lan daan dund dañ ko bëggoon lool boo nu fi jëlee nag nag ñu remplacé loole am na ay jëmm yu fi ne témoin lañ ci loolu jëmm ji ba may tuub 92 moo ko fekkee Ziguinchor muy Fatou Bal mi ba nu amee problème ak police ba ñu may teg ñoom ñoo bokkoon ci ñu doon manifester teg ñëw ci kanam police dafa dafa kuréel pendant trois jours te xasaay Baye Fall di si kat ngir dëmmal dëgmal Serigne Touba di sant sëñ Sall boobu bi nu tuubee ba pare sëñ Sall day na ngeen dellu ndax liggéey bi daa des ba nu àggee liggéey bi mot waaye sëñ Saliou ndam rek la ci génn kenn du Serigne Saliou ñu doon joge fa dem jënd ci la ñu doon ñu dem ci résumé rek dem ba jamono. ma dellu si moom mu a Momadou ma ne ko Mbacke mu ne boo demee nga ne sa waajur de Serigne Saliou ne la la nga ko diggoon jël na ko man ah Mbacke sama waajur mbaa dalaa dig xar mu ne ma déedéet mbaa dalaa dig béy mu ne ma déedéet mbaa dalaa dig fas mu ne ma déedéet ndax tool mu a ma déedéet mu ne ma demal rek boo demee laaj ko dana xam ma dikk jamono ñëw toog ak suñu waajur laaj ko ah Jean loo dig sëñ Saliou mu ne man ma sëñ bi de nee na ma naa la ne di nga ko dig jël na ko mu jàpp gémmiñam ne ndeke kii du nit dama ko doon nax faf nguur gi ma ne ko ah, ah naa la xamal leen ne kooku kenn du wax lu muy kafe lu mu la wax mooy dëgg ci moom mu ne ma yow mii laa ko digoon man a ah, kon da ñàkk nga ndax tey ji bés ni ki Serigne Saloum moom te kenn mënut fexe nag ba moomu ma sunu àddina ak sunu ah noonu waruñu yàlla lijjanti wuñ ko ñun Serigne Saliou di sunu yàlla. ku bëgg àjjana. tax ngay jaamu yàlla ñun ñu ngi àjjana ndax ñu ngi dund Serigne Saliou ku ragal safara tax ngay jaamu yàlla ñun lijjantuñu safara ndax suñu àjjanaay Serigne Saliou ñun lu ñu dund sunu àddina Serigne Saliou la sunu bakkat gi mooma bu nu dundee mooma moo raw ci noonu ndey ak baay ndax lu nu Serigne Saliou defal ndey defaluñu ko baay defaluñu ko dundal ñu ci lislaam juddul ñu ci lislaam ñu judd ñu doon lu nu doon mu tudd ñu lanu doon ñu nekk lanu doon dem fii nu nekk yi Grand Médine tey lu fa nekk islam ñoo ko teg sunu loxo la ko teg ku fay jaay xam-xam boo ñëwee nun ñu jàngalaat la te jànguñu ko ci benn daara lépp sëriñ su Saliou teg loxo suñu kaw lépp dugg alif lam mim zalikal kitab ba keroog ila axiri aaya xadis xaala la xaala rasulillahi bu la ci neex waxal ma wax la ko xasaay du sëriñ Tuubaa kasalika te mosuñoo jàng daara kooku du yàlla moo tax sang bi sang bi di di ab yonenté té kaay wax leen nous sommes dans les temps modernes té les temps modernes c'est le temps de la civilisation rationnelle nit ñi xel lañu ñu désormais le marabout est transformé en en raisonnant nit buy raisonner man je suis un professeur de philosophie té béni diplôme génnewuñ ko té école buñu ñu taxaw jàngale te keddu ngam on enseigne dans les plus grandes écoles du Sénégal Demandez-moi le professeur Djibi il vous dira qui est Mohamed Ndiaye. bu nu une conférence philosophique dafay aar C'est may moom a dem te loolu Serigne y la. jàngal demal ba Arabie Saoudite demal Yémen demal Al Azhar demal Turquie. demal Irak demal Habasha demal demal Damas Dimashqa bo ñewé nga jang kaalola ñu jàngalaat la udah, te loolu Serigne Saliou la Serigne Saliou da di Serigne Touba li tax mu don Serigne Touba moy ñun suñu juddu moma mo ñaan ñu don mu ne ko nak bu dana don goor waye rik bu ñewé bu len ko def ni ngeen di def yeen ci doy bu len laal lem ci yaramam bu len ko bën bu len ko ki waye laal len mandar go xam ci mom laal bo len ko laalé bu ñewé le Saint Pierre donc le saint de l'église le premier disciple de Jésus-Christ sur qui on a bâti l'église Saint-Pierre de Rome le plus grand saint du catholicisme on a visité tous les tombeaux des saints de Jérusalem en passant par n'importe quel

boo nuy xemam loo ajana te nuy dund ajana ak Serigne Saliou lu ñu doyee ajana mais di dund ajana di dee di nekk ajana looy doyee te ajana ajanaay yàlla jaam la képp comme ñun ñoo ko bëgg ba tax ñuy sagane Serigne Saliou jamono dafa jot nag et ce sera actuel actuel ce sera éternel Serigne Saliou est le dernier Serigne Touba sur terre et jusqu'à la fin des temps ce sera Serigne Touba loolu dafay laaj ñu xam ko ñun dañuy dund Serigne Saliou te sunu lépp baggan bakkan partout où nous irons nous le dirons ragaluñ ci kii ragaluñ ci kële that we know that we believe in Serigne Saliou the only God existed in that in that world it is only Serigne Saliou you know donc ñu xamal leen ko pero yo conosco que no tengo ninguna Dios en esta tierra ningún Serigne Saliou solo Serigne Saliou es el Dios de la humanidad

léegi ma dem benn su expliqué ma ne ma xam nga luma ma diggalanteeg moom waaw mu ne daf ma ñaanon ba bañ ko war ndax def ma ne dafa am lu nekk sama xol ma bëgg bu juddoo ma dugal ko fofé ngir mu remplacer ma ba dala nak ba egg nga à la consécration suprême faire la formation aller jusqu'à Rome côtoyer le pape Jean-Paul II l'amener ici l'un des plus grands saints des du 20e siècle le premier saint du 20e siècle d'ailleurs ndax biñ ko béatifié après sa mort c'est le seul saint du 20e siècle gëj nañu béatifier un saint du dix e siècle c'était Paul VI Comme lolu nek lo xamné manam maanaam don tabaarakalla jëf ju Serigne Sall ba pare mu defal ñu lo xamné ne kenn defaluñu ko ndax def na ne bàyyi nañ la ba nga àgg fofu man sama pap ma maa téye xam dem nuyu la ko ak pape Jean Paul II mu ne ma Pierre ma ne ko mu ne ma bu ma deewoon tey danaa dem ajana ndax lima don ñaan amna ko jour bobu mu wax lolu jour bobu la ma Serigne Touba génnee fofu daal di ma génne tuddee mo Mohamed ba mu tuddee Mohamed ñu jógee Ziguinchor di dem Touba ban àggee Touba danoo fekk jëmu ju tedd bi toog duñu xaar danoo egg si mu ne ànd xam yéen rek laa doon xaar nga àgg si mu ne bëkk ne bi saa waajoo yóbbu ko foog maa ngi sol sama sutaan sama rosaire sama lépp mën a ko ci biir mu soppi yére yooyu ma la joxoon ci suba si jox ko mu sol waaw kooku du yàlla. kan moo kan nu mu nu mu def ba xam maa ngi ñëw yàlla la nu egg mu dugg ci biir ñu sumi yére yooyu sol ñu ñu sol ñu ñëw mu ne ah ndax xam de may leen ma ndigal rek tuddee naa ko Mohamed tuddee naa ko Mohamed tuddee naa ko muy Mohamed moomu Serigne Touba wooyo maa ne ko ah Mbacke de daa am lu ma ñaanoon sëñ bi de te ginnaaw yow yaa ma def lii dam ko newoon damaa bëggoon fii ma nekkoon dam fa daan jaamu xamoon yàlla lool jële nga ma fa nag nang ma ko remplacer mu ne ma defal nañ la ko mooy sunu jumaa ji ma nekk Grand Médine seede yaa ngi nii ñëpp ñu ñoo nekk ñoo dëkk Grand Médine 94 ba léegi fa la nu Serigne Saliou yebal lu fay baax ñu na lu fa nag fi mboolem commune arrondissement de la Patte dañuy déglu ma nodd su ma noddu kenn du bu ma biirantee nag musiba am su ma fa demul de kon Serigne Saliou way yàlla loolu dem ku di noon Serigne Saliou noot na la téye la jox ma la ku lank a ah, mu a la gaay gaay li jënti la ndax attention ci raa man carte bi yàllu na moom la àndal boo dof boo dof dof loo ku baax ki defar boo baaxee mu ku bon ki yéesal la rek defar kon loolu jul mu bëgg leen xamal ne gis nga jëmm ji Il faut bien l'observer. Parce que Bob Marley avait dit, You listen carefully. It must be the last or the one that you listen the survivor in the night. It that night I will say you that this man that you know, it is the last, the last in this world. When you cannot so look him, it is only for you. yeen da ngeen am dimbalu Serigne Saliou parce que jëm ji ñi ñi yalla suñu borom dimbalé gisatuñ Serigne Saliou jàkkaarloog jëm ji diko gis yeen nga jakarlo jàkkaarloog Serigne Saliou bu yóbboo ngeen xol ko bu baax te ngeen ñaanal ko nak attention na fi yàgg te wër te gudd fan lol nak ndax bu yagge wër gudd fan da ngeen am xéewal bu yagge wër fan da ngeen di jaamu yalla jaamu yalla mën ta wessu bëgg Serigne Saliou lol donc lañ leen di yëgal di leen ko xamal assalamu alaykum nii na ngeen ma bëggal ci bëggal ko bàyyiwu ma kenn